ñoom ñaar ñëpp ay ay ay jeunes lañ ay ndaw lañ et puis euh, nu mu leen dalee mun na dal keneen ku dul ñoom par erreur so da ngay jàpp ni erreur la rek quoi et dañu juum et bu ñu juumee aussi dañuy ñaan yàlla bu ñu ci génnee ku nekk am jàngat boo ci am ba nga xamante ni beneen yoon dootul dal kenn quoi peut-être ku nekk si ñun voilà dund nga loo xamante ni tey jii nii bu la yàlla suturaalul woon mun na egg ñoom fi ñu egg donc affaire de jeune la. so da nga leen ñaanal rek xam nga ñu ñu yàlla dimbali leen ba lii nii ñu bañ ci euh, ñu bañ ci saaraani comme ni may waxee quoi buñ ci jógee ku nekk ci ñoom ñaar am ci benn jàngat ba nga xamante ni boo ñëwaatee si société bi di nga mën a continuer sa liggéey tranquillement et puis bañ a juumati ba yu mel noonu di leen di dal quoi. on c'est un bosseur liggéey liggéey kat et puis il a bien bossé travail il a bien travaillé liggéey na si album bi et je vois que communauté hip hop bi aussi fiil nañ liggéey bu mu def si album bi donc chapeau à lui dama koy ñaanal aussi bonne continuation ne ñu ñëpp ku nekk sa bor bu defee liggéey boo xamante ni am na am na professionnalisme def liggéey boo xamante ni dina séduire Sénégalais yi je peux même dire dina séduire Afrique léegi rek suñu musique bi commencé exporter aussi sur le plan international te loolu la ñaan pour tout le monde quoi. la hip hop la quoi et puis xam nga à chaque fois bu kenn di ñëw rek day dëggal boppam ku ñëw rek ne dëggal boppam wane ni li fi nit def ba gars yëpp ne waaw am na ku mën a ñëw pour teggi loolu def lu gën a gaaw day permettre ñun ñëpp ku ci nekk ñun dem liggéeyi et puis voilà loolu loolu loolu ndamu hip hop lay nekk ndamu communauté disons. Euh, Euh, musique bi lay nekk donc que ça soit muy Hakill muy keneen ku dul Hakill man lépp lu ma gëm mooy liggéey nañu liggéey et ku nekk bu liggéeyee dinga nga gis say résultat quoi